maa ngi sant yàlla di julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam gaaral ay kàddu yoo xam ne sóoraale ma nit ki ko war a jël utiliser ko autrement parce que li ma bëgg ci lu baax dafa bëgg lu wuute ak loolu kooku du tax man noppi ci li ma bëgg wax li ma bëgg wax mooy mbiram Kaliphone Sall ni ngeen ko xamee laa ko xamee wóor nañu ne am na ay noon yu takkaayu di wax lu ñaaw di jëf lu ñaaw di lal seen pexe te bu yàlla nangoo seen pexe yi mooy dina yàgg ci kaso walla du am jàmm alhamdulilah bi nga xamee ne doomu aadama mënalut moroomam dara lu may yéene ak wax ju ñaaw lépp lu mu bëgg ci moom mu sotti rekk dogali yàlla la tombeel man nag wax jii may wax engagé wul Kaliphone ndax seeteeguma ko ci fam nekk te duma ko seete waxaguma ak moom te waxagul ak man yónneewuma ci moom moom yónneewul ci man li ma mel ak Kaliphone Sall du suma benn mbokk moo ma ne demal ànd ak moom du suma benn mbokk moom ma présenté ak moom waaye du benn mbokkam moo ma présenté Kaliphone wala moo ko indi suñ ñaari mbokk yi kenn yëgut yàlla moo ñu boole ñuy ay mag yu majeur kenn ku ci nekk am liberté tànn ka muy àndal mu tànn ma ma tànn ko kon suñ yooni mbokk yi nekku ci benn mbokki Californie mosul yëkkati téléphone woo ma téléphone kenn laajut ma kenn gërëmut ma ci suma taxawaay ndax ñoom dañoo bokk ak moom du suma affaire man may ànd ak moom du seen affaire su ma wax nag duy neex damay mel ni ku réew wala ku aroga déedéet damaa xam niti réew mi xam réew mi bëgg su ma waxee kenn du ko daj moo tax may dugg ci plaisir dot détail leeral ko ngir li ma bëgg a wax leer ci noppi ki nga xam ne xol bu sell la am man nag maa mënul yàlla may ma xam-xam li ko soob xamal ma lenn ci baatin li ko soob ma ne Kaliphone suma xarit la suma àndandoor la suma mbokk la mu leer ma ne noon yaa ngi ko sëkkatal ma toog di seetaan bu boobaa naa fekk la wax ji buñ ko raay buñ ko rafetal mbirum projet bi nag awma ci kàddu nii buy defar nii buy yàq ndax jànguma yoon xawma yoon suma yoon nekku ci li su ma yoon nekk mooy am naa sañ-sañ suma xarit suma mbokk nekk ci difficulté ma tàllal suma loxo ñaan yàlla ngir mu mucc kii suma droit te kenn mënuma koo xañ ma di leen xamal ne démb ci boori yoor yoor maa ngi woon séeraas li ma am matul nag yi trois cent quatre vingt mille laa jël te man dama xam lan mooy sarax ndax ñaari doomu yonent yàlla aadama yi bi amee problème kii baykat la kii sàmmkat la ñu ne indi leen sarax baykat bi indi li gën a doyadi ci toolam sàmmukat bi tànn xar bi gën a mag bu ñu ko indee ñu teg jamono yonent yàlla aadama boo joxe waan sarax safara moo daan jógee asamaan lekk ko waaye bii leer a ñëw jël xar bi yóbbu xar boobu keroog bi ñu tëddalee doom doomi yonent yàlla ibrahim ñii na isaq ñii na ismail ndax siira day wutee tur waaye li wér mooy doom doomi ibrahim la ñu tër ngir rey ko moom la yàlla wàcce war jox ko ibrahim moom la ñuy tëbaskee sarax bu nangu la man duma rey mbote li ma amoon ci suma poos jeex na may sàkku képp koo xam ne danga bëgg Kaliphone Sall ci suma tur man mu engagé ma du moom du mbokkam ndax jëflantewuma ak mbokkam yi xawuma leen miinuma leen li may def santuñ ma ko li ñuy def santu ma leen ko damay ànd ak moom ñu bokk ak moom mu engagé ma man ngeen dimbale ma ma dimbale suma nit ci suma xam-xam bu altine ñu ànd dem añi bu dee suba la bu dee ngoon ñu ànd reer lii yàlla moo ko mën te teg na xam-xam buñ ko war a mën a defee te fii ma toll lottu na financièrement wax dëgg neex yàlla képp koo xam ne nag danga cee bëgg def sa dërëm ngir dimbalee ma ko man waxuma ngeen dimbale Kaliphone mënuma wax ci turam waxuma mbokkam yi man ma jëfandikoo suma xam-xam yàlla dindi ko def ko Wave wala Orange Money dew ma bureau kenn jëliwuma MoneyGram ni nii nii Western Union Wave wala Orange Money lépp lu ci jaam bi dugal ngir cofeelam ak yërmandem ci Californie na am Orange Money dina am trace jël naa ñaari nit ñoo xam ne internet laa leen xamee bokkuñoo man bokkuñoo Californie lépp lu may def danaa ko vidéo daneen ko fekkee fa may dugg guddi yi yeneen yu sew yi may def ndax baatin du wax mais nag ku amul loo lekk mën ngaa lekk médd soo ñàkkee pexe mën nga junj bu loolu paasee bis bu ko yàlla génnee ma teg ko mu toog ma toog ma wan ko reçu yi ñu def live ci live am moom Kaliphone képp ku yónnee woon bu ma la tuddul waneel sa reçu la ca des ma jox ko ko ndax maa ko laaj ci dimbale ko waaye ci turam la adduna nag bi mu sosoo ba tey kenn musul maa gis ci internet ma ne may leen ma ñaanuma ku yàlla bind soxlaalu ma nit dara waaye nag bu sa nit nekkee ci jafe-jafe nga war koo dimbale mu të nga am espace 72 heures tey la àjjuma samedi dimanche ba lundi mu leer la ne boo ci defee la nga war a def te yàlla nangu yàlla mooy kiy nangu jaam bu taxaw ne mën nga nangam te jiitaloo ci yàlla waxoo dëgg waaye sant yàlla bi Cheikh Seydi Hadji Malick waxee ne xam-xam bu wér bu àndee ak jëfe dañuy jur njëriñ li ma xam te mën ko man li ma war a am su ma ko amee ba def ko lëndi ma Californie ñooy reerandoo insha allahu rabbi lii laa bëgg képp ku ko mën 78 471 57 01 mooy suma numéro personnel ku ma woota enregistré wu ma sa numéro appel bi du dugg mais jarul ñu woowante jarul ñu nekk xarit def ci sa wéef li nga mënta yàlla tax ak sa orange money danaa ko jot danaa ko recevoir moom bu génnee ci jàmm ma teg ko di génnee numéro par numéro ñaata lañ joxe. lan ak lan laa ci def am na seede jël naa ñaari seede ndax àdduna dafa tëradi te lu yàq der dafa yomb wax ji yépp nag ma fi wax encore une fois du ci ndigalu kalifa du ci benn mbokkam man la engagé sël li tax mu engagé ma mooy duma ànd ak nit mu métti ma daw duma ànd ak nit muy dugg ci pax ma di ko seetaan ba ma waree wax ak moom wax naa la ma war a def naa ko mu dugg ci pax ma seetaan ko ne waxoon naa ko du man dama koy fekk ci biir génne ko ndax doomu aadama mënulul boppam dara man mii di wax tey ëllëg mun naa am lu ma dal lu gën a métti su boobaa danaa soxla ndimbal ci ñaan yàlla ci taxawu ci nangam ci nangam ci nangam man nag li ma mën in my own field si ma own expertise mooy lii wax ji gàtt na gudd na foog naa ne leer incha allah lundi ñaar mooy am damay ànd ak moom ñibbisi wala képp ku ko bëgg a pexeel ngeen toog fa yéen ñaar ndax ku bëgg a dagg sa gat nga dagg gatam ku la bëgg a ndokk yéen ñaar ñëpp ngeen ndokk kon lu ci nit ki mën ngir dimbalee ma ko man maa ngi lay xaar te lépp ci ay preuve laa koy teg ak lu leer su ma soxla du mës a génn ci nit ñi ma ñaan leen wala taxawalu leen du am ba àdduna tukki ndax barke ëpp doole wërsëg te yàlla foog naa ne may nañu barke ñu mën a dundee ilaa ajali musamma waaye nag bu circonstance taxawee bul rëy bul ne su ma génnee nit ñi ne mu ngay ñaan mu ngay kaaja dafay tappale daf koy utiliser fàtte loolu ndax ku fexe ba jàppale woo sa xarit mu ngay xaritam ku fexe ba taxawuloo sa xarit mu ngi taxawul xaritam ñu ngi séq lañ war a séq kon man critique du tax ma fomm li ma war a def xalaatuma ko ci àddina yal na yàlla dimbale suma xarit suturaal ko te may ko jàmm képp ku ko yéene safaan yàlla bu mu ko dal te yow mi bon ba ko yéene safaan na yàlla saafara sa xol ba doo ko ko yéene bi himmati cheikhu tijaani radiyallahu anhu bi barakati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam